Thank you. téléspectateurs yu Louga TV ñoo ngi leen di ziar bu baax di amaat contentement ak mbégte teewaat fii comme niñ koy faral di defee ay bés yu jot wàccaat ci terrain bi daal di jàkkaarloog ñenn ci doomu Louga ñoom aussi ñu àddu jëmee ci euh, jafe-jafe yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi bi la yoon nag dañuy waxtaanee li nga xam ne que moom mooy euh, discours à la nation bi euh, président Macky Sall def nan la ko doomu aussi père ñu ngi lay nuyu. ngi leen di fay waa Louga TV. man maa ngi tudd Sidya Gueye dëkk quartier Coxna ci wetu école bi. APR démb président de la république def beneen discours indi yeneen mesures yoo xamante ni euh, xëy na bett na ñenn mais bettul ñu si des yow nan la la def mesures yu bees yi nga xam ne moom di ko rafetlu rek parce que vraiment depuis le début mesure bu mu jël ci yoon la ko teg parce que bu duloon loolu kon nëga ni dana fekk ñu naan Sénégal musiba am na fi heureusement ñu ngi sant yàlla bu baax

lii kenn waru ci dugal politique kenn waru ci dugal lenn dañoo war a jóg ñëpp taxaw jàppale ko ah, ba feebar bi jóge fi te loolu c'est possible Louga nag remarqué naa ni fan yëpp presque du ma yeboon ne à quatre vingt pour cent boo génnee danga gis nit ñi takk masque benn problème rek moo ci am ñi koy wàcce di ko tii takk seen sikkim yeeg seen bopp yi yooyu moom moom moom moom kiiwu nan nga mën a expliquer nit ñi euh, ba ñuy soog a door mu def vingt heures six heures du matin ñu dem ba kaa yi gën a yokk mu def ko vingt une heures cinq heures du matin. waaw parce que xam nga dañoo nekk ci weeru koor te feebar bi ñëpp képp kuy jullit war nga xam ne feebar bi ñaan li ko fi jëlee ci la bokk donc jumaa yi mënu ñëw tëj jumaa yi définitivement comme ça. donc il faut que mu jël mesure jéem a yolomal tuuti parce que gis nga njiit du dara rek mooy sa xel ngay demee ak déglu askan bi parce que lu mu doxal noonu moom vraiment rafet na aw na yoon mooy jumaa yi dañ ko bind ñuy julli tamit vingt heure bi vingt heures dafa gàtt vingt heures benn rek mais yokkoon na une heure temps boo xam ne dañ ci mën a dox yenn soxla yi nga ñëw taxawaat dëkk metti na kenn kon xam dëkk metti na liggéey amul dara amul kenn ku ne ngi toog te lépp feer bee ko il faut nag ñu mun ko affronter nag mun ñoo toog rek di ko xaar. couvre bi ni lim ci kii vingt et une heures cinq heures du matin je crois que ni c'est c'est acceptable vingt heures six heures bi c'était au début il fallait ça il fallait ça pour marquer les esprits wan nit ñi ni lii ah c'est très sérieux dem nañu ba jamono bii nag bon ak xat-xat yeeg bon yenn situation yi posé wu mu yokk def ko vingt et une heures ba ba cinq heures du matin.

Mm-hmm. ci la ci la rencontre yi du ëpp mm-hmm. ci la jaxasoo bi du ëpp mm-hmm. guddi lu ci ëpp kenn ku nekk da ngay ñibbi sa kër nga dem dallu ji mën naa ne mën naa ne jaxasoo yenn jaxasoo yi bëccëg bi lay ëpp le jour mais guddi gi ñu ci bëri dañuy dem dallu ji le fait bi mu décrété état d'urgence bi couvre-feu bi man dama jàppoon ne bu ñu ko doon def ba di ko def franchement parler moom Ah, ak ak bañoon ko def daanaka boo xoolee moom moom moo yem ndax yàqul dara ci propagation bi ndax tëju nañ jàkka yi pendant deux mois mm-hmm. ñu xool chaque jour nombre de contamination yi di gën di yokk mm-hmm. waaw def na discours bi ñu ngi doon xaar discours bi démb quoi tey jii sax lañ ko doon xaar mu avancé mu arrière ko indi ko démb quoi mais discours bi liñ ci doon xaar am na lu ci gis am na lu ci gisul quoi mm-hmm. waaw ñu danoo gisoon ne ouvre ba guddi bi ñu gisoon nañ ni ah njëriñ li bëriwul quoi ndax guddi gi nit ñi circulé bi ñuy circulé ci guddi gi bariwul ko daa xam bëccëg gi la gën a circulé ba pare ñu bëgg a jël nit ñi tëj leen guddi gi waaw ñu dañ doon xaar au moins sax mu def ko au vingt trois heures euh, lu mu dee dee sax mu def ko vingt trois heures au euh, cinq heures du matin yi mais une heure de temps bi mu ci yokk noonu daanaka moom vingt heures nekkoon rek ñoo yem quoi waaw ubbi marché yi nag noonu mu ko def noonu nit ñi xaaroon nañ ko quoi xaaroon nañ mu ubbi marché yi ndax nit ñi am na ñoo xam ne si ne sonnoon nañ quoi ci leen yaakaar seen dund ci sen yaakaar sen ci yor parce que xam nga mbir mi ab microbe la su fi nekkee nit ñaa ngi ci marché bi pendant six jours donc set ko même su nekkul woon feebar bi amul sax loolu la ñu waroon doxal mu ko bi waaw parce que microbe moom kenn ku ne xam na ni baaxul dafay lore. suñu mbokk yi nga xamante ñoo nekk fenn dem bëgg a war dem bay ñoom aussi nee na la dem bay ñu ni mel koy tamit parce que tamit am maye ko yor mënul tey fexe bi rek ne ne kenn du béy il faut que mu xool benn mesure boo xam ne ak benn benn toggal boo xam ne boo war na ko mën toggal boo xam ne ñëpp dinañ mën a gis seen bopp ci mbéy mi te ñëpp dem bay parce que li météo leer na mooy na dana macha allah yàlla bu cat dugg ba ñëpp dem béy parce que réew moom ab mbay dong ko amul leneen mbéy ak sàmm dong ko euh, discours bi mën naa ne bu ko bindoon sax jàpp naa ne ak fi Sénégal yi toll euh, dana doy. Euh, bu ko joxoon benn ci ay ministre am sax dana doy ndax li mu waxoon ne l'heure est grave loolu ba léegi askan wi ci la nekk population sénégalaise mënuñu lu remercier leen féliciter leen gërëm leen comme ni ko président de la République mag Sall waxee parce que boobu ba kenn ku ne yaa ngi def Pastef ak góorlu ak taxaw doon benn joxante loxo pour mën a xeex li nga xamante si ne moom la fi yàlla indi muy mbas mi Euh, ku ne xam ne ne mbas mi mbir mu doy waar la comme ni ko président waxee mais fi ni basé tuuti rek ci discours bi mooy ci problème mu marché yi yaakaar naa li ci gënoon nekk jafe-jafe mooy couvre-feu bi ni mu tombeek weeru koor wi li ci président war ko puus ñu ko ci gërëm ci puus gi mu ko puus ndaxte réew mi li ci ëpp ci ay Sénégal ay jullit la beneen bi des masjid yi nga xam ne dañ koo war a ubbi nit ñi di ci julli ji euh, yaakaar naa marché yi moom maanaam euh, xëy na ubbi nañ ko mënul ñàkk xëy na sax doon na dox mais nag li ñu ci gën a insister daal di ko wax président de la république son excellence le président Macky Sall ñu gën a insister ci marché yi gën ko organiser gën a xool dem bi ak dikk bi ak euh, ci ci ci ci duggan beeg dugg beeg génn bi nan lañ koy demee ne ndaxte buñ seetloo yi fi xew yëpp ci cas yi ci ëpp ci marché lañ ko jëlee boo xoolee fii ci Louga cas bi fi am bi fi njëkk am ci ci marché dugalante marché yooyu ci lañ ko jëlee ba ci lañ tëjee sunu marché bi yaakaar naa loolu tamit nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax veillé ci bu baax a baax a baax ànd ci vigilance beneen bis des yi imposé na ko ñëpp war ko takk yaakaar naa loolu moom dañ ci war a jël ay matukaay yu mat sa kun gis tëkkoo masque ñu delloo la sa kër Euh, euh, heureusement que sunu doom moo yor masque yi wala boog bu yorul masque yi sax moo yor boog industrie yi koy produire mm-hmm. muy le ministre de l'industrie mm-hmm. le ministre maire Moustapha Diop mm-hmm. ku ne xam ne ne loolu moom ci compétence am la bokk ñu ciy sant yàlla di ko ci félicité ci 10 millions de masques yi nga xamante si président Macky Sall demandé na ko pour ñu def pour ñu am ko sa yaakaar naa ak taxawaayu le ministre maire Moustapha Diop ak engagement defe naa ne plus rapidement euh, dana bokk ci li nga xam si ne euh, dana gën a dana gën a yéwénal euh, mbir yi te yaakaar naa taxawaayam dana ci def liggéey bu rëy ndax xam nañ engagement am xam nañ taxawaayam ci mbir yi. ni mu ko waxee ñu vivre avec ñu a bi est-ce que 10 000 waa euh, maanaam du du du xam na lii ñu annoncé démb lii ñu annoncé démb xam naa ne du doy waaye président comme da ko waxee noonu ndaxte nit ñi ñu ngi doon takk masque fii ci Louga boo gisee maire bi yónnee na fii 4000 masques ak ñun ñii nga xamante si ne ñun ñi ngi defar ay masques di ko joxe ak ci suñu góor góorgóorlu kon loolu foofu la sukkandiku ba ne lii di ñëw xëy na bu fekkee lii kenn kon da nga a am ñetti masque ñaari masque euh, pa nit ku ne di ko takk defe naa ne foofoo tax président Macky Sall waxee. 10 millions masques yi waxin la sax mais mais dana ko. faxin na rek mais comme commencement loo gis rek chaque chose a un début début bi da nga génne di diminuer masque ba bala muy demaat cinq jours quinze gis mu génn waat leneen parce que moom du doy te masque yi moo ñu mën a aar ci ci jàngoro bi amul leneen masque yi rek moo ñu ci mën a aar du leneen. waaw ñun nag ñun nag ñu ay chauffeur lan quoi waaw chauffeur nag ñun ñu ngi xaar quoi ndax ñun oto bu ndaw nga yeb ci ñaar nit yaa ngi dégg. Mm. oto bu yeb ñeent nit nga yeb ci ñaar nit. ah xam nga loolu loolu du liggéey ko a ah. da ngay yab ñaar nit rombaat keneen nit kenn arrêté la doo ko mën a yab waaw te loolu man oto amul distance boo xam ne si ne am na mat na un mètre waaw ñaar nit ñi a ak ñett nit ñi ñoo yam ci biir oto bi quoi waaw man loolu loolu loolu laa gis quoi. ñun chauffeur yi gisuleen seen bopp. gisuñu suñu bopp quoi ñu ñun dégguñu si dégguñu si suñu bopp dégguñu dégguñu si ñu tudd ñu quoi. waaw wax na ñu ngi doon xaar mu teggi mesures yi ñu teg xam dëkk ak dëkk yi nii ah boo mënta génn région ak région sax nga génn euh, ci ci département département bi mais boo demee boo jógee Louga gi dem Koki sax ñu jàpp la nga bëgg a jógee Louga dem Ngumba sax ñu jàpp la ma loolu dafa métti quoi waaw ak ñi nga xam ne si ne dañoo des yeneen dëkk yi lang fa quoi mu jéem a yolamal pour ñu ñibbi seen seen seen seen dëkk yi quoi. waaw mais wax na ci béykat waaw wax na ci béykat yi quoi dégg naa ko muy wax ci béykat yi waaw mais du béykat yi kese am na ñoo xam si ne dañoo demoon tukki rek dem dem tukki ji rek ah gana ji benn kër rek mënuñoo ñibbeeti ba léegi nii waaw am na ñoo xam ne si ne koñ bi am gis naa fa ñoo xam ne si danoo dañoo ñëwoon gane si rek ba léegi nii mënuñoo ñibbi deux mois nga am ko ci àll bi nekk ko ci ay kër yoo xam ne si ne mooy loolu amuñu doole quoi ñu yor la seen njaboot yoraale la man loolu dafa metti waaw mun mënoon a yolamal daal affaire yi wàññi biis yi ni ñuy yeb sax ah bu fekkee bis bi cent la yeb ñu yeb ko cinquante waaw wa wàññi ko quoi nit ñi di dem par ndànk-ndànk waaw delluwaat seen seen diwaan yi quoi. ci lieu ko mooy jumaa yeeg waaw jumaa yi moom man gisuma woon sax ñu tëj ko quoi waaw ndax néegu yàlla kenn war koo tëj waaw ndax boo tëjee jumaa yi ah bàyyi marché bi muy muy fees ay nit loolu daanaka nga bàyyi jumaa yi moo gën quoi ndax boo demee marché bee heure yi jaay heure yi nii jaay jën yi heure yi jënd jën yi ak yi jënd lujum yi da ngay dem affaire bi nii lay def waaw te loolu moo gën a seere jumaa yi jumaa yi mën nga julli ñu def espace xam nga kii taxaw nii kii dandante dima loolu mën na nekk ah ñu bañ a teg jegente quoi waaw mën nañu ubbi jumaa yi jumaa moom kenn war ko néegu yàlla kenn war ko tëj waaw suñ mbokk yi extérieur aussi nee na suñ génnee àdduna ñu indi leen waaw loolu moom man yaakaar naa ne gannaaw ñi comme ni nii suulee nit ñi ñi gaañoo fii ñi gaañoo fii ci kii bi coronavirus bi comme noo ñooñu ñu leen suulee noonu la ñuy suulee ñi ñuy jëlee bitim réew rek loolu moom amul différence man ñooñ mën noo ñëw ndax nga nga nga nga deele sa mbokku dee Europe ah nga ñu indil la ko nga nga jàkkaarloo moom ñu denc ko loolu mooy tax nga fàtte kii gaañu quoi mais ñu wala téléphone rek na la diw gaañu na denc nañ ko ah yow ba léegi sa xel mi day laam-laame naan est-ce kooku dee na waaw loolu lool moom lu rafet la moom waaw. nga xam ne aussi feebar bi moo leen euh, moo tax ñu àdduna nekk euh, extérieur ñoom aussi nee na mën nañoo ñëw léegi désormais. waaw loolu tamit wax na ci maa koy dégg nee na mën nañoo ñëw vraiment ñëpp rafetlu nañ ko parce que tamit nit mënoo dem Europe ñi nga xam ne aw nañu Europe nga jël nga jël sa néew war ko jëndal foo ko denc lépp war ko jëndal day metti te nga néew boo xam ne après dootoo gis dootoo ko ziar dootoo def dara loolu tamit vraiment kenn rafet rafetlu ko donc su ci waxee. yërmande tam mu wàcc mais su toppoon njiitu yooyu lu ñu waxoon bon benn néew du fi dugg mais rafetlu ak nekk nekk ab jàmbaar moo tax mu xale tànk tànk tubéem ci lool pour néew yooyu ñëw. ci jàkka yeeg yooyu ubbi nañ jàkka yi wutal nañ ko ay gestes yoo xam ne si ne nañ ko kii nañ ko jéem a respecté te nu xam ne tamit àjjuma farata la junni dem di ko jooxe mais àjjuma du ceegee ne rek fa ngay dem pour ñaan àjjuma la plupart sax ci ni ko yàlla waxee euh, dane bu ngeen dee bu àjjuma ñëwee. li nga xamante si ne mooy commerce bi kii bi pose leen ko ngeen wéerandi ko ba dem julli waaye bu ngeen jullee ba pare fa ca sensé rek ca sensé la wax immédiatement na ngeen dem tasaaroo ji na ngeen sàkku ji seen wërsëg foofu yàlla waxul sax bu ngeen jullee pare toog leen ci jàkka ji déedéet foofu ko dafa mel ne kon bu ñu jullee pare lu ñuy ñaan amu fi dem leen tasaaroo ji ngeen àggale seen ay activité foo ñu jéem a dégg téere bi jéem a dégg waxu yàlla jéem a respecté tamit li nga xam si ne moom lañ wax ndaxte ku ne xam na ne xam ngeen ne aj yii fi mujj bu dul 2015 wala 2000 seize bu ma juumul mm-hmm. xam ngeen la xew biir màkka mm-hmm. te ma nga xew ma nga xewee ca mm-hmm. baytullaahil xaram ca kaaba ga la xewee xam ngeen ne benn giri bu wàcc rey fa milliers de personnes rey fa ay millions millions nit loolu mus am ci Sénégal bousculade ba fa amoon rey fa ay am na ay senegal yu ca des rey fa ay millions millions nit te defe naa foofu mooy barab bi ñu gën a yaakaar ci ñaan foofu la ñuy defee tawaddu fa la ñuy toroxloo fa la ñuy laxasaayoo kenn du sol lu am poos kenn du takk dara kenn du takk lam kenn du takk jaaro yàlla rek ngay jàkkaar lool di ko bàkk naan ko labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wa nihmata teewut ba mu ba ba yàlla bëggee teg nattu teg na ko fa la fa la fa maqaama Ibrahima di nekk yëpp xajjatul bidaa la la muy am lépp yonente ba discours bu rëy ba mu fa def yëpp teewut ba fa yàlla soxlaa nattu daf ko fa def kon yooyu il faut nit ñi di ko xam ñu xam ne ñaan du tee tamit yàlla bu bëggee def nattu daf koy def dem ci jàkka tamit téewut a dee toog ci jàkka tamit téewut a dee ñaan ci jàkka tamit téewut a dee li fi nekk mooy ñu yàlla rek moo ñu mën a aar ñu boole ko suñ ay ñaan mais bu naree ubbi na jàkka yi na leen fa soxlu euh, euh, nu nu neex nañ ko bu nu fi ñaanee yàlla wuyu ñu déedéet du façon boobu nañu respecté li ñu wax d'abord ba pare kenn ku ne nga gëm ne yow mii booy génn yow yaa yore mbir yi nga gëm ne yow mii kat mbir yi ci yow la nekk kenn ku ne respecté sa bopp respecté parce que li am solo mooy état bi li mu war a jëkk def mooy respecté doomu aadama waaye doomu aadama yi tamit kenn ku ne nga respecté état bi nga jàpp ni nga jàppee ne sa jabar bu tolloo diggante ni nga koy respecté bëgg ko bu la yónnee nga dem bu ne laa boot ma nga boot ko ndax lan ndax li ci biiram yow yaa ko ko jox danga nga ko bëgg a ñu def noonu état bi ñu jàpp ne état bi ñun ñoo ko jox suñu ay doom bëgg mu sauver ko bëgg ëllëg mu rawale leen léegi nag ñun ñoo ko mën a waggar di ko sàmm di ko aar moom mu am ci ñun yërmande defe naa ne président li mu def nii man jàpp naa ne ci discours bu njëkk ba sax yaakaar naa man boobu laa doon séentu sax tey mu def ko euh, bii sax wax dëgg yàlla rafet na mais ci discours bu njëkk ba laa gënoon a séentu mu def lii kon nan ko jàppalee loolu moom président Macky Sall ñun ñëpp ñu àndandoo doon benn joxante loxo pour mën a xeex mbir yi lii daal yaakaar naa mooy xeex bi nga xamante si ñu wax na aussi si dëpp yi mooy ñi nga xam ne dañu doon génnee àdduna au l'extérieur ñoom si loo loolu tamit loolu tamit rafetlu nañ ko xam nga fii Sénégal moom nin ko tëggee mooy réewum masla ak réewum aada ak réewum sutura kenn ku ne ci bu sa mbokk faatoo da koy bëgg a jot waaye tamit buñ ko jotee rek tam xam tanu xam ne corona mbas bi moo ko rey bu ñëwee nañ ci def rek li nga xam si ni moom la yoon wax wàññiwul dara ñu ànd ci xol bu xol bu laab and ci ak dal and ci ak sutura ba paré tamit ñu suturalante ci suñu biir ñu denc leen nan nan leen wara denc ci dencen wu rafet waye nak nan ca moytu timit nak la nga xamanteni si ni la docteur ay tektale na ku ku ca yegg la leen man la ci fekk lolu ñu jël ci engagement moytu ko bu baax yaaka nan lolu rafet lu nan ko ñi nga xam ne buñ fa faato leneen la leen faat buñ ñe ñu def leen fi ñi ni def ñi nga xamanteni dara dalu leen buñ faato lolu dara koy waxtane dina réduire heure bi mm-hmm. euh, heure heure heure couvre feu bi mm-hmm. yàlla xam na ne man xamoon naa ni dina ko wàññi mm-hmm. yeneen yeneen yi ci am yi ci aajowu mooy côté côté jàkka yi mm-hmm. tout le monde le sait xamoon na ni bu gars yi waxee dina ci dinañ ci indi dinañ ci indi dinañ ci indi woyofal parce que mm-hmm. jàkka yi moom man mosuma d'accord ci tëj gi ndax fuñu bayé marché te marché mo upp engouement te jakk heure heure la lay jox jakk daf lay jox rendez-vous. Mm. muy julli fajar tisbaar takusan timis gee. Mm. je pense que rencontre yoy la lay jakk heure yoy la nga am rendez-vous audience pour di dem jakka ja. Mm. Euh, fofu limu fa doon gis ñu ñu jël. ay ay mesures ay mesures sanitaires yo xamante ne si. gars dinañ mëna respecter distanciation bi. aussi dinañ tek ay gel hydroalcoolique bi pour gars yi di laver sen loxoy mhm. ñu respecter distance 1 mètre yi. Mhm. pour gars yi continuer seen julli mais gisuma ñu tek jàkk. ndax ni ñu mën def bu organiser euh marché. Mhm. franchement parler buñ ko défé organiser djuma ta ben affaire du am. dégg nañ ministre bi wax sax né jàkk yi duñu ñu romb nombre 13 nombre 13 ah je pense que bu fekkee jàkk bi yatuna na. te mën na contenir lu ëpp lolu mën nañu augmenter lool nombre boobu ba pare ñu respecter distance yi ci bunt bi ñu teg fa ay ay ay ay ay bassines yoo xamante ne si balaa gars yi di dugg laver seen loxo ba mu set ñu jox leen ay gel hydroalcoolique ñu laal mm-hmm. bu ñu duggee ñu tàkk masque te respecté distance mais bu fekké jakk bu yaatu la mom franchement parler mën na mën na mën na upp 13 personnes yi mom là je suis pas d'accord mën na upp 13 personnes man si sama gis-gis. gën dem soña peut être amna ño xamni ni parce que li am ni ñepp la impacté ñepp tout le monde est impacté il faut nit ñu comprendre ko nonu alors solidarité bi ci war aussi amna ño xamni yalla jox na len lo xamni li mën nañ ci dimbali nit ñi ñu daf ko te yalla tax buñ ko defee dañu dimbali président bi dimbali sen bop dimbali réew mi

nañ jéem a xool luy defar réew mi ak lu fiy jële feebar bi ñu ñëpp ñu takk jubal ci def naa moo mooy am importance mais di ko sànni xeer ak yooyu jaru ko parce que moom ci boppam actuellement vraiment yërëm naa ko trop trop trop trop trop après discours bi gis nañ ministre de l' intérieur ni euh, jumaa yi duñ ci mën a dépasse lu ëpp treize personnes non non kooku aussi xalaat parce que man man même man bi ñu may wax affaire dama leen ni mais nit ñi nit ñi ku ci nekk sa xalaat sa xel yow yaa war a xool loo xam ni lii baax na ci yow nga def ko lu bon ci yow nga bàyyi ko jarul woon aajowul sax ministre bi naan la defal lii walla defal lii parce que ku ci dem ba ca mosquée bi di tafoog nit ñi aussi lu la fa fekk yaa yaa ko yóbbee sa bopp ce qui est ku ci nekk boo jëlee yar sa bopp xam ni ngay def xam ni ngay toogee xam mesure barrière yi ñu wax nga appliqué ko yàlla xam na ni yàlla dana ñu dimbali luy jóge fi ci jàmm ak salaam ministre bi wax rek la mën président bi wax rek la mën li ci des population bee ko yor nekk fii di xasteeg di attaqué nit ñeeg di kii yooyu jaru ko jaru ko lépp lu ñuy wax ñoom ay jullit lañu comme ñun ah mais ku sañoon chaque jour nga dem jàkk ja dem julli dañ ko daan def boo demee ba nga xam ne situation oblige mënatul nekk.

ils ont énormément de morts yo xamni ñun yalla suturaal nañu macha allah yàlla nga yalla xeb doli ah yalla mussel ñu ci ci musiba yi musiba bi vraiment jëlee ko fi mais ñun vraiment état bi ñu yoré actuellement ni pour problème bi lay wax dé liñ ci wara def yëp ñu ngi koy def te man vraiment je suis très très très à l'aise pour en parler hein parce que depuis le début fu ma mënti toog ñu am daanaka kii daal décision yi mu jël amul lan lu ci kenn di wax ku ko ci mënta dimbali dal nga noppi quoi mo gën. ah yenn critique yeeg yenn wax yu sew jaru waa d'après sama gis-gis ci discours bi euh, dama gis ni fi ñu fi ñu waroon a euh, dëgërale mhm. fi leen yolomale fi ñu waroon a yolomale ñu dëgëral fi mhm. parce que euh, propagation bi la ñu doon éviter pour nu mu yokkee mhm. mais tey dama gis ni tey la propagation bi gën a yokk tey la gën a yokk parce que foo daan dégg ay vingt-sept cas

côté mm-hmm. koom-koom côté économie. Mm-hmm. moom leen gën a favoriser à actuellement que mm-hmm. que que que santé nit ñi man loolu laa gis parce que dama yaakaar ni. Euh, niñu ñu ni ñu woyefalee mesures yi xaw ko yolomal ci ci gaay dama gis ni koom-koom bi lañu bañ mo naax saay que que que santé santé peuple bi man loolu la gis d'après mon avis. kon yow da nga gisoon que ni mesures de corona ko téngal vivre avec yow anno ci quoi. pas pas pas mu gëna téng sax parce que nous sommes dans un pays bo xamné ni bo xolé ni Euh, pauvreté bi daf fi am toole mhm. te Sénégal dafa bëri ay bàyyi góorgóorlu. Mhm. ñu si bëri seen dépense ñu ko fanaanoo. Mhm. wala dañu ko fanaanoo bu ñu xëyee joxe ko dañuy dem wutiwaat. mais bu dul loolu ñu xool euh, benn benn benn benn stratégie boo xamante ne si. dina woyof ci askan bi. ba pare dina éviter propagation bi. man loolu laa gisoon quoi. waaw discours bi seetaan naa ko baax déglu naa ko. mais am na lu si ma am am am am si lu ma àndul quoi. Mhm. mais ñun chauffeur yi parce que daf ñoo seetaan waxul si ñun dara. Mhm. respecté ko ñu bëgg ñu xama waxul daray chauffeur. Mhm. ñun ma man looloo métti man. ak kullu chauffeur tamit. bépp sewu Sénégal Macky Sall lu mu tudd sax waxul dara si ñun dañuy gaar suñu oto boobu léegi depuis trois mois ñuy gaar suñu oto boobu léegi xam nga ñu ñëw njëkk a gaar suñu oto boobu léegi waxul dara si ñu jëm si ñun métti na sëñ bi loolu dafa métti bilaay walaay talaay kon yow gisoo sa bopp ci gis ma sama bopp man gis ma sama bopp quoi gis ma sama bopp cette place la moom laay dawal de yaa ngi dégg mais damaa gaar sama oto di dawal taxi hmm. ndax sonn hmm. waaw na Mhm. voilà lan nga doon xaar lan nga doon xaar ci discours ñun da doon xaar xam nga pour mu tudd ñu bàyyiwaat ñu oto yi pour ñu continuer dem liggéey suñu liggéey mhm. xam nga ba ñaan ñun ndimbal soxla ñu sax ndimbal ndimbalam naka téye ndimbalam mhm. téye ñun soxla nañu bàyyi ñun ñun dem liggéey mais ndimbalam naka téye quoi waaw yow si transport interurbain bi nga nekkoon waaw transport laay si transport laay dawal da nga doon dëkk dëkk dëkk laa daw Kaolack Dakar amul fu talay mais gis ma suñu bopp moom damaa bëggoon mu dindi mesures yi yéen ngeen mën a dem seen dama bëgg mu dindi mesures bu nekk na sol masque ak gant ak gel client bu nekk takk ko bu defee ñun daal mën a am ndam quoi mhm. waaw loolu lañ bëgg kon yéen déception daal ngeen am déception la sam waaw gisuñu suñu bopp daal mhm. ñun daal ñun nguur Macky moom ñun sofër mhm. gisuñu suñu bopp quoi waaw loolu laa may wax nguur Macky Sall lii ñun sofër gisuñu suñu bopp <laughs> waaw suñu sañ nak mu jàppale sa yi xam nga bàyyi ñu liggéey dem liggéey ñu sat ñu fen naan sanga <laughs> jamm yalla liggéey jamm yalla kessa la def <laughs> bilaay wala taala defuñu leneen lu dul loolu Macky Sall ngir yalla bu dee ya ñi dégg nga dimbale ñu bàyyi ñu ñi dem liggéey waaw loolu la bëgg man la première fois nga lo ko lu ga di wax ak ñom ci bi seen télé bu bees bi lay tuddu lu ga TV nan la la def waaw Louga TV moom man man maa ngi koy suivre sax vraiment rafetlu naa ko trop di leen ñaanal rek yàlla na seen euh, télé sax bu nekk télé bu mag a mag a mag boo xam ne àdduna yëpp dinañ ko seetaan loolu daal daal di ñaanal. waaw loolu moom lu rafet la quoi Louga moom ñu ngi leen di ñaanal quoi ngeen dem ca kaw ca kanam quoi. waaw ndax ñun Louga moom lépp lu fi ne rek dañuy bëgg mu jëm ca kanam. waaw lu mu mënti doon rek ak. waaw franchement parler euh, gis naa am naa ci mbégte tey affaire yu mel nii dafa baax ci citoyen yi pour ñuy pour ñuy exprimer wu li nga xamante ne si moom moo nekk seen biir te amuñu fu koy jooytoo. amuñu fuñ koy jooytoo yéen a ngi ci yoon góorgóorlu leen góorgóorlu leen ngeen gën a gën a gën a malgré affaire yaa ngi fi ñu gën a yokk professionnalisme bi gën a gëstu gën a xam parce que ti tiit dañu nekk dans un pays laïque boo xamante ne si mun naa ne dañu xaw a kii daal il faut ñuy gën a information yi di gën a jege askan bi parce que amuñu foo xamante ne si fa leen di jooytoo mm-hmm. comme genre affaire yi moom dina baax pour population peuple bi di mën a exprimer li nga xam ne moo nekk seen biir xol waaw di kontaan si Louga TV di la ñaan téléphone ak yàlla na fa yu yàlla jëm xam nga di la yokkute daa mm-hmm. ngeen jëfaat waaw maa ngi leen di gërëm bu baax di gërëm télé bi mm-hmm. euh, maa ngi ci am sama xarit bu ma koy wax bii boobu guma leen sax yàlla dogal ma ñëwoon fii am yu ma doon réglé ngeen fekk ma fi ñuy waxtaan maa ngi ciy waxtaan sama xarit Yankooba Ba yaakaar naa ci yéen la bokk euh, mënuñu lu dul gërëm leen sant leen di leen ñaanal yàlla ndaxte lii lu bees la te am na solo trop ci dëkk bi euh, yaakaar naa mënuñu lu dul lu ko di leen ñaanal yàlla ngeen yegg fa ngeen war a yegg ndaxte ay jeune ngeen yu jóg ngir bokk ci participer ci développement wu dëkk bi développement wu réew mi mënuñu lu dul sant leen ñaanal leen yàlla ci weeru koor bi non kooku kay c'est une bonne initiative parce que da ngeen permettre nit ñi ñu mën a exprimer wu ah wax seen xalaat ah, vraiment lu baax la ci Louga danañu permettre ñun ñëpp ku ci nekk li nga xalaat nga mën ko wax ah. ñuy xool nag lu lu nañ xool rek luy rafet ñu koy wax parce que nit mën na wax xalaatam te yan yi lu egg ci yan situation yu yu yu yu vulgaire yeeg yooyu. soo doon ñaax seen bi lan nga koy ñaax ci ay ligne éditoriale ak yooyu noonu mu doxalee nan. non ligne éditoriale bu bon li mu lay li ma lay wax ni rek ligne éditoriale bu ngeen bëggee lu lu kiiral xool leen luy rafet lu positif critique d' accord mel na nag critique boo xam ne bii day jëmale li nga ne def kanam mais farfarloo moom bu ci àndee rek musiba am bu ci nag li nga xalaat en ton âme et conscience nga wax mais nga wax ko nag ak ay teggin quoi parce que ñun kenn yaruñu ci ay ay ay ay wax lu bon nag ay yenn vulgarité yi. ñu ñu moytu ko surtout loolu daal bu ngeen ko defee def naa ni li ngeen bëgg da ngeen ko am quoi sans problème. waaw ko Louga TV bi lay jaajëfal. téléspectateurs yi comme ni lañ ko waxee woon ba ñuy door nii lay demee chaque jour ñuy wàcc ci terrain bi ah, tàllal suñuy micro doomu Louga yi ñoom aussi ñu àddu jëmee ci xew-xewu jamono démb nag euh, président de la république daal di def discours à la nation. ci noonu tey Louga TV wàcc si terrain bi daal di tàllal micro doomi Louga ñoom aussi ñu wax ci seen xalaat donc nii lay demee chaque jour du ñuy wàcc ci terrain bi yéen aussi yéen waa Louga tàllale suñuy loxo ngeen wax euh, li nga xam ne kat moom moo nekk di xew ci jamono ji ci noonu damay daal di remercier ñoom laa àndaloon Seydina di ko jaajëfal bu baax ak euh, Thioly sama cameraman yi waaye aussi di leen jox jox daje ba beneen yoon incha allah ci beneen reportage